waaw dañu ñëwoon tey jii ci résidence su ambassadeuru Palestine ñëw masawu ko waaye seddeel ko aussi suñu cofeel ak suñu engagement ci wetu vaillant peuple palestinien bi ak yi jot a xew ca jamono ji ca foofule mu naqari képp kuy jullit waaye mu romb sax julli di léegi naqari képp kuy doomu aadama ci yi ñu leen teg euh, dañuy woote nag appel bu am solo ci képp kuy doomu aadama nekk ci biir réew mi walla nekk ci yeneen ni réew ñu xam ne kat jóg jot na pour ñu libérer le peuple palestinien euh, jot na ni nga xamante ne israélien noonu la ñu toogee ñoom am seeni jàmm non le palestinien ak keneen ku nekk ci àdduna bi war am respecter traité yi nga ne jox définir ak ak yelleefu nit ñi ci àdduna lii nag ba ñu def ko dañu am leneen luñ ci toftal mhm. mooy amoon na euh, fukki at ci ginnaaw Day ñaan am ci Palestine tey ji occasion bu mag la ma ñëw dédicaceel ko ambassadeur mu am ci lool une vingtaine d'exemplaires dina ñun tamit na lool ñu bëgg ji am ndax metti la suñu la presse di aussi son excellence l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal di ko aussi ndax képp ku nekk ci réew mi gis nga ji nalawul ndax sénégalais yi màbb nañu ci kawam ñëw ànd ak moom ci naqar bi am te nag dana gën a leer sax incha allahu taala ndax àjjuma ñu ngi lancé un grand appel fu sénégalais nekk ci àdduna bi fu mu nekk ci àdduna bi nanga bàyyi li ngay def te ñëw ànd ak ñoom ak ñun à la place de la nation ñu taxaw wan àdduna bi yépp ne li xew ci Palestine mhm. ñu ngi koy naqarlu te jot na Euh, peuple palestinien bi ak dëkk ba mu nekkee nekk seen loxo ba ñun suñu bëggee dem foofu ziyaari ñu jël avion wàcc ci aéroport internationalu Palestine mhm. dem julli ji saafoonteeg suñu ay mbokk ñibbisi ndax loolu nag dafa dagan dafa war lii mooy suñu tànk tey di leen gërëm di leen sant bu baax jërëjëf macha allah cet illustre cheikh l'immanence euh, cheikh mustapha sen Al-Hassan Sen, Cheikh Al-Hassan Sen, assez célèbre, et le président de la fondation As-Salatu ala Nabi, alayhi salatu salam. Euh, nous sommes donc euh, euh, dans, cette, dans cette période de deuil, oh. dans cette période que subit le peuple palestinien difficilement, mais nous sommes en même temps en train de, de recevoir ce mouvement de solidarité de tous bords, de tous horizons, de quatre coins du Sénégal, euh, de toutes familles religieuses, des partis politiques, des syndicats, mais la présence de, euh, de Cheikh Al-Hassan Sen aujourd'hui parmi nous et nous a beaucoup confortés euh, et nous a soutenus combien nous avons besoin de cette de cet esprit solidaire, de cet euh, esprit fraternel. Euh, il, est, venu pour exprimer euh, d'une façon très ferme et très claire. et, ces mots nous, ont, vont directement au cœur. Et, de, mon, tour aussi, je dirais à Sheikh Al-Hassan, à sa délégation respectueuse, toutes nos vives reconnaissances et remerciements. Barakallah Fik pour votre venue. Et je retransmets également à notre peuple, à nos autorités, euh, l'impact de, toutes ces délégations successives. Et Allah euh, préserve le Sénégal de tout mal. Et Allah, inshallah nous réunit pour le, le, bien et le service de notre Ummah. Tous ensemble, Inch'Allah, dans cette manif, inshallah pour crier haut et fort aux droits palestiniens et pour, Inch'Allah, dénoncer les agressions et les agressés. لزاجريسور إسرائيليان بارك الله فيكم